aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fattaahu wahaabu yaa saaqu yaa maliki rifta wa habli wa rsuqni kun ana dayqi asin ajilan bil bishri mahmadin hatta uqima li dini laha kana yasiru join tuba wahmi wa qini adal ghura wa turib li samaskana kasama wa adi wa am shakin yud musman ajib sulu siman hasan di muhammadin wa tafrika fatana amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngi siyaare ñëpp waa alam taxadim waa alim wax ma ñëpp rek ñu siyaare leen di siyaare mbokki jullit ñi mbokki talibe yi fu ñu mën di nekk ci màggal gu gu màgg googu ci personnalité bu mag boobu mooy soxna Mariama Jaaratullaahi Buso waxtaan lay doon woo xam ne du gudd tënk rek barkeeloo ko ci màggal gi di di siyaare Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan yàlla dëgëral ko ba lim naara liggéeyal bu jëlee maam yi lépp suñu ba mottali ko ci loxoom ñu ànd ko moom maam Jaaratullaahi Buso ku tedd ngoog gaa yi danañ ko waxtaane lool ma ma di ko misaale man ca tundoom bu mag wa soxna Mariama yamu jaaratullahi as-siddiqa umm sayyidina isa ruhullah alayhim assalaam di wax na it nag soxna jaaratullahi moom taarixam guddut ndax nekkul personnage ci biir histoire boo xam ne histoire da koy bàyyi xel lool waaye dafa dafa dafa mel ne nday ja noonu nga xam ne soxna Mariam umu sayyidina Isa alayhi salaam dafa dafa mel ne moom taarix bàyyiwu ko xel lu may ne nday ja imraatu Imraan xam ne kon moom nday ja la mooy personnage bu mag bi kii it soxna Astu Waalo mooy personnage bu bu mag bi ci ci histoire li tax nag kenn ku nekk. ñu tudd soxna Mariama ñaari soxna soxna Mariama yi mooy seen doom yaa tax kële Sayyidina Isa alayhi salaam ruuxullah kii Sayyidina Ahmadul Xadim alayhi akbar wallahi baaxil ci Xadim soxna Aswaala moom moo yoroon daara noone xam ne daara ji riir fonkoon diine fonkoon tasawuf ba su ko amoon message ñëw sax daraa sol jëlee bi jigéen yooyu yu jóge Maroc te ji te mu am bu jigéen am bu góor moom la la daa sol di jiite waxtaan ak njàng ma ca daaraam ja kooku kooku ku tedd la moo yar soxna jaara jëmbati moom jikko yu tedd yooyee. jikko ji jëm gën a jëmbat ci moom danañ ci ñëw waaye la tënk jikko yi rek mooy waqar na fii buyootikon na salaay salaam la yàlla di nga kon soxnaam ya mooy royiku leen ci kër yi sax leen fi bu leen ko génn lu may farata rek nga xam ne saytu jëpp da nga koy yemale ci ci kër gi loola moom la moom la soxna Aswaalo Mbakke jëmbatoon ca doom doom ju tedd ja daan loolu dana feeñ ci kanam waaye nañ ñëw ci soxna Mariam muy ummu sayidna isa alayhim assalaam na na na ko alxuraan yare woon xam nga xam nga xam nga imraatu imraan ba mu ëmbee doomam ji tëdd jooju di ko muslul seytaane loolu kon dalay indi nasatulaka maa fi bani muharrara ni cher si na ci koo xam ne da ko mën a dimbale ca liggéey ba ca jàkka ja ne ko naasira waaye ma ngi koy musul seytaane musul ko si seytaane mooy xam ne kon kooku jàngoon na yéen ju tëdd jooy moo tax wan ba taxa na baatan tan xasanan daal di ñëw karaama yi nday ja daal di feeñ ci moom ku la maa daxala alayha sakriyal mihraab wajada indahaa rizqan qaala yaa yaa Mariamu annaa laki haadaa Mariamu nooy amee fruit joo xam ne jamonoom jotagut Mariamu daal tontu ko inna llaaha yarzuqu man yashaa'u bi ghayri hisaab yàlla kat day wërsëgale ab jaamam ci lu dul mu koy nattale ay ay session yooyu ak yooyu foofee jigéen gàggante ni góor muy muy Sakariya Sayyidina Sakariya alayhi salaam hunaalika daa Sakariya rabba mel na ne flashback la mel ne Sakariya dañuy dëpp dil si waat loolu fàtte woon na ko ndax daa amoon soxnaam su yàggoon ak moom amul doom loola kon doom dal di juddu sunu Sayyidina Mariam moomu nu ko yàlla tërbiya woon yaa Mariam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'in yow Mariam daal yow ah sa ndey de da daan tëroon ci ci yow lu rëy kon nag ni ñu koy dimbalee ci waan ba tax na nabaatan xasanan ji mën a ñëw mooy de naka jaamu yàlla jaamu yàlla yow saxal ci jaamu yàlla di ànd ak jaamukat yàlla yi di jaamu yàlla sell sell dégg nga ahsanat farjahaaja bu ko alxaan waxee ñoŋ nga ñoŋ fii bi tamit yëpp ñoŋ nga ñoŋ nga mooy tax leeru yàlla mën a tabb ci xol ba de de xoolal ba Sayyiduna Jibril ñëwee ci moom ci àll ba wax ak moom boobu naa ko inka in kunta taqiya naka yow daal bu dee da nga ragal yàlla daal nooy fekk jigéen ci àll bi moom képp dong ak yàlla ci ngay wax ak moom loola lu am so solo la kon waqar na jooju. sunu sunu maam ji moom it waqar na ji nga xam ne moom lañ ko jàngaloon mu ne ca waqar na jël la koy firndeel mooy ba soxna asowalo ñëwee ci kër gi nuyoo di ko seet si ba xam nu mu toogee fekk ko so ñu indil ko sarala muy jàngu ngir booba pënd baag yooyu ndax ndax rëppatal fas wi jaare ci ci buntu pot ba boobu jigéen daawul jaare ci ci ci buntu pëcc mi waaw ba mu defee loola ñu soxna si jox ko sa la gi daal di si biir di si solowaat ngir teeru gan gi takk ca caq baag jara yooyee yoo ko ndeyam ju tëdd ja waajale woon bu ko ndeyam séen daal di tàng jër bëgg a dëpp moom yoo xam ne xel ba ba ma koy jox kat li lii taxutoon loolu kon muy lu am solo kaa it moom kat noonu la la def waaye soxna la seen soxna si pël su tëdd soo xamante ni moom laa doon jox moom laa doon jox caq ba ak jaraba daraja ne ko na nga ko xayma bu mu xayma ba ba ne jeex na dikk di la war ba lépp ne ma ne ma kat maa la yoreel coow fekk maa ngi dund soo liggéeyee ki ngay liggéeyal ndax xam naa da ngay liggéeyal yàlla soo liggéey bu la fayee nga fay ma. soxna sedd nga nee naa so so soxna soosee xam naa ku ku ku ko xam tur wa di di li ma jàpp tedd nga ko mat a yaxal turam la ci histoire mat naa it tudde yi doom ndax turam bi sax fi waaye moom jëfam ja moom sax na fi di wéy soxna Mariam moom nag ñoŋ nga ak yooyee noonu la ko sëñ sëñ Modou Basiir waxee ca mil baax xadim wax ne kon moom ku am diine la ku ñoŋ la. loola sax moo tax jaaratullahi judd trop judd donte ne am na ku ma dégg ci waxtaankat yi mu naan loolu wérut waaye jaariyetu baaxaw ma lañ ko tuddee moo turandoom la waaye loolu loolu danaa ci indi leeral ci kanam ndax ki nga xam ne moo bind ci moo bind ci soxna soxna jaara te fekkee woon mooy sunu maam ja maami suñ murtala mooy ashahid ma cheikhu masamba mariama ibnu cheikhu masamba xante ceebu ibnu cheikhu madun pend buyu ibnul alim al allaama sayidi al muxtaar ndumbe jóob al kokki yi moom daa ne woon ca daara yi maamul anta sali ja moom fekke woon fekke woon moom nag ci xasida gi mu def ci maam jaara nga ne moom moo jëkk bind ci moom moo fekke bind ja dikkatuma keneen ku fekke bind ci moom kon moom la wax dong ngay wér kon ndax ginnaaw moo fekkee dund te it nekk siqa nekk koo xamante ne ku wóor la ba mu waxee ne bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima daan ne xamdan liman jaala al islaama wujudaana wal kufra wal jahla xusaanan wa fuqdaana aska salaati ila anma salaami ala muhammadin saadaman lillahi qaddaana wal ali wa sahbi wala xaafina millatahu maa nuwirat maa nawarat millatul islami buldaana wa baadu fal qasdu bil manzumi madxatuna li samxatin sumiyat bi jaarati ana nee na xasida gi li mu bëgg a def nag mooy tagg samxa ku lewet ku tëdd koo xam ne kooka day tuddi nañ ko léegi jaara alaana li dégg nga mën na ko taawil ne kat li kon dama bëgg way yi léegi nii waaye dafa mel ne foofu sori na te mais li gën a jege mooy su mu yet bi jaarati bi jaaratal aana mooy kon kat léegi kon ki may wax nag tuddul jaara waaye dañ koo góob dañ koo dakkantale léegi kon kon aw aw dakkantal la nga xam ne foofu moom mag ñi dañ ne noonu ne mu daa do doxee ci maanaam ci di tefesu sàkket yeeg yooyu ba bañ a jëmmiirlu yoon wi loolu taxoon mag ñi ña suñ dara di xool bi rek ne ah ci lañ jaaratullahi la mooy daal ku dëkkoog ndigal yàlla yi la jawatullaha jawatullahi jawatu bi foxaani rabbil mu'min suñ tubaab ne dëkkale nag yàlla ci dund axwaan moom it kon kon loolu la mu wax ne asiratun watanan sharifatun nasaban karimatun xasaban tafdiu habana mu ne ku ku am cosaan la démb ku ku ab sërif la it ci ci wàllug nday ja sërif la sërif la dunaa ci wàllug bàyyi ja sërif la kooku ko tedd la mu ne mutiatan rabbaha wa cheikha sayidaha ardatu afaaluha lillahi idmana mu ne ku ku nangoo topp topp borom këram la sëriñ ñoom ba day muy maam ànd sali day gërëm lu na ay jëfam ay jëfam gërëm lu na ko maanaam ko ko kon nag jëfi jëfi soxna jaara moo gërëm loo maam ànd sali waaye waxut ne maam ànd sali moo gërëm loolu sew sew bu mag la daa jëf ba ba làq ba làq ka ngërëm kon lay wax ardatu afaaluha lillahi idmana walam tubin ahadan walam tushin abadan walam tubin amadan man abaha mana moom musa def lu ñaaw kenn musa doyul kenn musa toroxal kenn mu ne man xaawalu xaajatan fi fi milkiha wajadu mucxalu xawaaiji laa yalqawna xirmaana képp képp ko ko am aajo ca la moom fi milkiha lam lam am ñëw na bari na su boobaa day dana am paju aajo waaye daal du dem fay xoy nen du dem xoy nen man ayabuha bila qawlin wala amalin yazra alayha fa kaana lahu diyana moom kenn mënu koo mënu koo aybal mu ne imsaaraha imsaaraha jaa'iun aw zaaraha damiun saara bima indaha shubhana wa riyana ko xiif boo demee ca keesam nga fekk fekk fa dara lu mu la jox ko mar booba ndox ndox ndox jafe na aw ñam bari na soo demee la la nga fekk da nga lekk ba rek da nga naan ba màndi mu ne yaa taaliban naa ilan fas al bi jaaratina ku soxla ndimbal laajal sunu sunu jaara moom wamror biha talqa ihsaanan fa ihsaanan jaar fa rek yow da nga da nga dajeeg njëkk ànd ak njëkk kamusaayinin ataaha waxeetun jiduhu fartadda yun ciidu insaan fa insaana pare na ku fa ñëw di nee na ca maam jaara di sakku ndimbal nee na soxna sa dimbale ko ba demee di dimbale ay nit ak nit mooy kon la muy joxe kon kem tolluwaay kàttan dana bari kon ab tablu kon wa kam bari den ata lil ilmi sayyidaha fartadda yulimu sa sabxaana na sa saxbaanam na sa saxbaana nee na nee na bara bara na koo xam ne dafaa ñëw kees la ñu ba di wut xam-xam bu demee dinañ bu demee na doon kàngam juy jàngale mu ne wa kam xaraira illatin xamal na fala yuskar na min dikra isxaw suwa bana mu ne bari na nag ay gaay yu tëdd ay ay ay ay ay gor yu tëdd tëdd tëdd tëdd yoo xam ne suufe nañ ngir ngir na fu ñuy waxtaane maam jaara kenn kenn kenn du du leen tudd ngir na na nam daay dimbalee mu ne amal bilaada jami an mat war jaar jaarit naa fallahu yumlikuha yum nan wa iyana mu ne moom kat moom daal gox bi daal aw taggam fis na bi yàlla na ko ko ko ko yàlla may xéewal ak moom ne ama abuha axuha xaaluha fahumu xayrul masaixi axlaqan wa deenam ne bu bàyyam ak magam ak wala mbokkam jaayam ñu ñu ñoom ñëpp daal ñooy ngeen ji sëriñ ci ay jikko ak ak diine loolu loolu kon moom la as-sayyid ash-shahid ash-sheikh Massamba Mariama ابن الشيخ مسبع أنت شيبو ابن الشيخ محمد بن دبيو ابن الشيخ العالم العلامة سيدي ما وطن به يوب ci tag soxna jaara kon soxna jaara kon kon kon mi bokk day mel ne kon ci tënk kon mi bokk lii rek kay taarixam taarixam lii la la taarix ba ba andi nag moo mooy am kii mu am aw xadu daxri yi وسلطان سمع